di sant président de la république Macky suñu kilifa di sunu mag euh, ci euh, wóolu bi nga xam ne wóolu nañu ko jox ñu responsabilité yu toll nii ba ñu liggéey fi liñ fi liggéey ci ndigalam ak ci xelam ak ak ak ci ay tettalam donc ñu réaliser fii lii ñu réaliser. tonnage bi ma fiy ñëw trésorerie bi mu ngi nekkoon moins de cinq milliards tey gis nañ ni trésorerie bi mu ngi douze milliards. ñaanal ki ma fiy wuute ki ma fiy wuutu. puso bi bañ a réer ci loxoom yàlla dimbali ko taxawu ko xelal ko inspiré ko ba nga xamante liggéey nañ ko fi mu gën ko ñoŋal yokk ko. di jaajëfee le président Macky Sall ci tabb bi ñu tabb ci kaw pour ñu ñëw jiite euh, loterie nationale sénégalaise ci confiance bu mu am ci ndaw ñi ndaw réew mi encore ci lu mu mës a wone ci liggéey ci biir Sénégal di ko ci remercier ci fànn yëpp di ko sant di ko gërëm. di ko naan nag njàmbaaram bi mu fi bàyyoon def na liggéey ju rafet te dañ ko war a sargal ci loolu maa ngi ko ci sant di ko gërëm di naan tamit ñii nga xamante ni ñu ngi fii di liggéey nañu jàppoo doon benn pour liggéey yokk li nga xamante ni jot nañ ko fi liggéey